compléter par rapport ak euh, li muy wax euh, manifestation boobu euh, soxlañu ci autorisation ñun la loi tënkuñu ci ut autorisation suñu bëggee toog ci dëkk bi nga xam ne ñun ñoo ko moom suñu ay baay ak suñu ay maam ñoo ko tabax soxlañu ci autorisation donc nous demanderons un encadrement de l'État te wax dëgg yàlla xaar ñu leen sax ci encadrement sànq daam mu ngi wax waxu nervi yi damay leeral ni ay nervi ñu ngi si biir gendarmerie te ay nervi ñu ngi si biir police tamit mhm. ce on a fait des recrutements yu doy waar yoo xam ne euh, ci jamono Macky ay nervis yoo xam ne dugal leen ci biir force de l'ordre et de sécurité yoo xam aujourd'hui comportement voyou bi ngay gis ci biir force de défense sécurité yëpp ce sont des gens yoo xam ne ay nervis lañu donc ñun aujourd'hui xaaruñ ci autorisation xaaruñ ci encadrement la souveraineté nationale appartient au peuple lool la constitution wax peuple bi dina génn incha allah primo exiger ñu libérer tous les détenus politiques ndax ils sont très nombreux à être dans les geôles de Macky est c'est anormal muy benn ñaar nañ ci woo tous les syndicats pour ñëpp grévandoo on va paralyser ce pays pour faire entendre raison à Macky Sall moo xam ne dëkk bii du moomelam du moomeelu baayam bu mu bëgg def lu ko neex ni mu ko neexee incha allah duñ ko seetaan donc li ci bëgg nag euh, ci fin ba mooy askan bi yëpp jël sa responsabilité ñu mën a faire face à ce tyran à ce monstre là qui s'appelle Macky wax dëgg yàlla bu bàyyi lu dëkk bi nga xam ne ni ko ko nañ euh, ko delloo nañ ko joxew incha allah mm. taxawaay mën ñu ko gàll benn doomu aadama kese ñëpp taxawaat naan ali Ousmane Sonko ali Ousmane Sonko mm. Ousmane Sonko xeex la nekk bi ñu jàpp ko teg ko luñ ko teg tey mm. askan bi moo war a jóg xeex boobu askan bi war a xeex il faut ñu nangu que dugg kaso daf ciy xaj bu leen araamal seen yaram yi kaso kaso ay gor fa nekk il faut ñu nangu ni dee def ciy am kuy dee na nga dee ngir dëgg na nga gay ngir borom bu ñu nang bu ñu ragal tamit ni ay loraange mën na si juddu waaye ñoo nekk di def leen li nga xam suñu ay sët suñu ay doom ñu nar ñaanal ci il faut ñu pare ci wàll boobu